ñaan ak jaamam bu sell ba muy rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabur rahim suñu borom kat say jaam ñi ngi lay ñaan lii nuy def ci ay jaamu yàlla ak ya ko jiitu woon nga nangul leen ko ndax yow dey lépp lu waay wax ak lu mu def dégg nga ko waaye xam nga ko waaye yow sunu borom noo ngi lay ñaan nga jéggal nu sunuy bàkkaar ndax yow kat yaay baalaatekat bi di jéggalaatekat bi mbokk jullit yi bokk na ci liy bégloo aji gëm yàlla euh, nga xam ne dana mën a kontaanloo ab xolam sedd ab dënnam yufrixu alqalba wa yusliju sadra mbir yi nga xam ne mën naa kontaanloo ab xol ba noppi sedd ab dënn ci ku gëm yàlla mooy bu taxawee ci kanamu boroomam subhanahu wa di ko jaamu ak même sax bu taxawut ci moom waaye mu fas ni anna lahu rabban ismuhu latif am na boroom ndeke boroomam bi tudd sunu sunu boroom mu yàlla bokk na ci ay turam yu sell mooy al-Latif al-Latif mooy ku baax ki te bari ñeewant ci ay jaamam mbokk jullit yi xam ngeen ni sunu borom ay tur yu bari la am yépp a sell yépp a foor yépp a baax tur yooyee boo ko xamee gëm ko di déema dund la ca nekk bokk na ci njëriñ yëm la mën a jural mooy boo ci ñaanee sunu borom sunu borom may la walillahi alasmaau alxusna fad'uuhu biha yàlla mu ni sunu borom yàlla am na ay tur yu sell te kawe ku ciy ñaan bu ci jafndoo bu ñaanee sunu borom may ko bu bokkee ci li ngay fas mooy sama borom day bokk na ci ay turam mooy al-Latif mooy ku am ñeewant ñeewant ak yërmande teqatle leen jafe na alhamdulillah ñeewant ak yërmande teqatle leen yombut ndax li ko waral mooy ñeewanteeg suñu boroom ci kaw yërmande la tege ñeewante gi ci boppam ci kaw yërmande la tege nga xam ni koo xam ni ku amuk ñeewant am ak cofeel ku am ak yërmande ku bëgg ay jaamam la moom suñu borom te li ci yéeme mooy ñewante gi dafa tege ci kaw ay sañ-sañ te mbokk yi kat xam ngeen ne nun fii ci àdduna li nu xam mooy ku bari ay sañ-sañ foo ko fekk ay tojaange rek lay def ah moom de moo ko sañ aman ah, de sañ naa ko su ma ko defee dara duma ci fekk seetlu ngeen loolu nit bu baree ay sañ-sañ li ci ëpp ci ay def-defam ay tojaange lay doon waaye borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ni moom moo bind te di kilifa gu mag gi di buur bu màgg bi ku bari ay sañ-sañ la waaye sañ-sañam yooyu dafa tege ci kaw ak xereñte ak mbaax ak yërmande kon latif yërma ñeewant googu mi ngi tege ci kaw yërmande ju ànd ak sañ-sañ moo tax ci jeexintalu suurtu Yuusuf ba Yuusuf di wax di bàkk sunu borom bokk na ci lam wax inna rabbi latifun lima yasha inna rabbi sama borom yàlla latif ku bari ñeewante la lima yasha ci lépp lu ko soob coobeer gi coobeer gi coobare gi ay sañ-sañ la moom suñu borom moom sañ naa def lépp waaye coobare gi dafa ànd ak lutf muy ak ñeewant ak yërmande ju mu teg ci ay jaamam mbokk jullit yi xam ngeen suñu sunu borom ni mu màggee ni mu baree ay sañ-sañ ni mu mënee def te dara du ko ci fekk yim am ci yu baax yépp ni mu ko mënee téye te kenn du ci man dara li di ay safaan nim mën a bàyyi ni nu mënee bàyyi ñu ni këmëx tàbbi ca safaan ya te dara du ko ca fekk mu amuk ñeewante di orienté doomu aadama orienté goo xam ni la baax ca moom dong ca la koy wootal wallahi di nga xam ni inna rabbi latifun yi ma yasha suñu borom yàlla ku amuk ñeewante la ca la muy def la tax Yuusuf wax loolu bokk na ci xam ngeen ni ku xam qisatu Yuusuf fa mu jaar génn ca kër baayam ñu tàbbal ko ci teen ñu ni déetawaay ñu génn ko dem jaayi ko ci dëkk ba ñu ni déetawaay ñu tumurankeloo ko ñu ni déetawaay ñu tuumaal ko ñu ni déetawaay ñu tëj ko biir kaso mu def fa juróom-ñaari at ah ba génn nag doog a nekk buur dëkk ba gën a màgg ca buur ya fa mas a jaari yépp inna rabbi latifun lima yasha moom daal coobareem gi ni mu koy defee dafa ànd ak ñeewant borom bi tabaraka wa taala moom moo bind moo tax gis nga mbindam gi dafa tege ci kaw ñeewant alaa ya'lamu man xalaqa wa huwa al-latifu al ki bind moom daa xamut lim bind lu mu doon ahankay borom mooy ki bind ak a lim bind ak a ay jaamam waaye xam ngeeg bind gi yépp dafa tege ci lutfu wa huwa latif mooy ku ñeewanti alxabir ci xam lépp nag li wala fi tuddee xam ba ca loolu la mag ñi di tuddee xam ba ca léeg nga gis nit nga di ko réerantal foog ni lii nga nekkee xamu ko wala foog ni li ngay wax xamu ko fekk xam na ko daa xam ba pare ba li wolof yi tëddee xam ba ca mooy inna rab ala ya'lam man xalaq wa huwa al-latif al-xabir ku amut ñeewante la ba pare xam lépp nag fi ne tojaanga yi nga def te nit ñi xamuñu ko suñu borom yàlla gis na ko xam na ko te teewut mi ngi jëfandikoo lut ci sa kaw alaa ya'lam man xalaq kanaa ki bind moom daa moom bind la ba mun mënut xam li ngay def an kay li ngay def ak li ngay wax lépp suñu borom mu ne xam na ko xanaa kay li des kay mooy rek wa huwa latif dafa amul ñeewante rek allahu akbar daa amul ñeewante rek de waaye tojaange ji nga def tojaange gi nga wax su tojaange gi nga nekkee suñu borom mu ni xam na ko de wa huwa latif ku amul ñeewante la alxabir ku xam ko moom suñu borom yàlla dara umb gis nga de gis nga léewan ni borom bi tabaraka wa taala ku amuk ñeewant la boo ñëwee ci wàllu wërsëg xam ngeen ni wërsëg ni ko yàlla seddalee lu yéeme la kenn ku ne ak la la suñu borom jox kii ci réew mi la war a amee wërsëg mu ni ki ci des moom ci bitim réew la ko war a amee loolu am na lu tax kii wërsëgam da koy doon mu ni kii wërsëgam moom da ko war a liggéey kii wërsëgam dañ ko koy may waaye kii wërsëgam moom euh, ak pala ko koy may kii wërsëgam daa war a teel a ñëw kii wërsëgam dafa war a yéex a ñëw kii wërsëgam daa war a bari kii wërsëgam warta bari kii dina am wërsëg waaye ab diir laay toog ma nanguwaat ko kii dinaa ko bàyyi mu ñàkk ab diir waaye wërsëg waa ngi ñëw daa yegg seegul maanaam façon doxin wu yéeme la ko doxal woo xam ni loolu loolu dafa tege ci kaw ak lutfu ndax borom bi tabaraka wa taala mën naa xam ni xam na ni yow mii am gënu ci yow mu xañ la yow mii xam na ni am moo gën ci yow mu jox la الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله يلا لطيف بعباده أك أمم نيوان أي جامم يرزق من يشاء muy wërsëgal ku ko soob maanaam ku ko soob ci kaw machi ala tege maanaam ku ko soob moom sunu borom mu jox ko wërsëg ku ko soobut du la jox wërsëg kon da nga yëg ni am naa buur bu tudd al latif muy ku amuk ñeewant te ami sañ-sañ te bari xam-xam te xam lépp ba bari am yërmande ci doomu aadama ji allahu latifun bi ibadi xool waxul sax dafa am cofeel ak ñeewant ci nit ñi waaye ci jaamam yi la wax jaamam yi jaam yi ci lañ bokk xorondam wa ngootoon wa matt wa melentaan wa lëppaa lëpp ba yëpp ci ay jaamam lañ bokk kenn ku ci nekk lutfu rahman moo koy fekk fa mu nekk wërsëgam di ko fekk kenn ku ci nekk lutfu rahman mooy tax muy nokki ci ngelawam li kenn ku ci nekk lutfu rahman moo tax giraawaali goo dugg boo ko xitalikoo mu génn la ca kenn ku ci nekk lutfu rahman moo tax yow ngay dund ba tey la illaa bu dul la bu fekkoon daf laa toppee li ngay def ba léegi jub nga fi walaw yuaxidu llahu nnaasa bima kasabu ma taraka ala dahriha min dabba su ko defee nag mbokk jullit yi ginnaaw xam nañ ni am nañ buur boo xam ni mooy al-Latif war nañoo gën a xóotal suñu xam-xam ci kooku mooy kan di al-Latif ginnaaw buñ ko gënee xóotal ba gën koo xam nag sunu cofeel ak sunu bëggeel ci al-Latif daal di commencé gën a yokk bu commencé gën a yokk saa bu ñu taxawee ci kanamu sunu borom di ko jaamu yëg-yëg bi ngay am mooy ki may jaamu huwa al-Latif nga xam ne daf lay dolli énergie daf lay yokkaat nga xam ni kii nga koy defal moom lii may def fi ne lu ma def xeeb naa ko man lu ma def ci lii may jaamu rek xeeb naa ko lu ko waral maa ngi koy defal al latif te al latif fi ma féete kenn féetewu ma fa yëg-yëg boobu jàpp naa ne boo koy am doo tayal ci ay jaamu yàlla boo koy am doo sonn ci ay jaamu yàlla boo koy am doo yokkal ci ay jaamu yàlla su ko defee nag booy ñaan sa borom nag nga tallal say loxo yow suñu borom inni as'aluka bismika al latif ndax yàlla mu ne walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha am na tur yu sell dee leen ko ci ñaan yow suñu boroom bokk na ci sa tur yi al ginnaaw bi nga déggee ni kii mooy al latif te lii ñu la ci wax ab toq la ci géej toq bu génn ci géej moom xam ngeen dara génn te lépp a fa des kon li nga jot a dégg ci al latif ab toq la la nga ca xamut moo ëpp waaye li ma ci jot a dégg daal doy na ma pour ma xam ni am naa buur bu ñuy tuddee al latif te it la muy def lépp a baax te na mu koy defee noona dong la te waxtu wa mu koy def woowa dong ca la jotee yow sunu borom man day maa ngi lay ñaan ci sa tur wii di allatifa an taltufa bi naa nga daal di may ñeewante nga ñeewante ñu loolu day bokk na ci lii tax nit ki ñeewante gi ko suñu borom di yokk dool jox mu gën a yokk mu gën a dolleeku waaye day taxit nag mu gën a bëgg suñu borom day taxit mu gën a sawar ci jaamu yàlla yi day tax mu gën a sawar ca lam nekk noo ngi ñaan sunu borom bi asmaihi alxusna wa sifatihi alulia wa bismihi allatif an yaltufa bina subhanahu wa taala noo ngi koy ñaan moom sunu borom mu nangul nu nangul leen yéen doon nañoo woor bàyyi ba ca guddi yee ñuy jéem di jëfe la yonent doon def ci joxe ay guddi noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala wépp yiw woo xam ne digg na ko ci weeru koor yal na nu ci suñu borom defal aw faral xadd wan nasib gépp njëggal gum digg ci weeru koor yal na nu ci suñu borom defal aw faral xadd wan nasib la nga xamante ni mooy guddik laylatul qadr te tey di bis bu jëkk ci bis yi ñuy taxawee di bisab fukkeel ak ñaar fukkeel ak benn bokk ci bis yu yaakaarlu yi bu dee moom la noo ngi koy ñaan suñu borom yàlla nañu dimbali ba lan la lam ca digge lépp ci ay xeeti xéwal ki yiw ak mbaax mu defal nu ko su fekkee du moom it bis yaa nga ci suñu kanam yàlla nañu dimbali ci dàq ko ba koj ko ba am ko wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain